salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ak yu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag su ngeen ñu gisee fii ñu ngi fii ci kër Cheikhou Kouyaté nekk joueur international ginnaaw nag xibaar bu ba nga xam ne ah, daal nañ koy eh, daal di yëkk muy génn àdduna waajuram bu góor tey nag ñu ngi daal di taxaw kenn ci ki nga xamante ne si mbokk la wala sax jege ñaar ci ki nga xam ne nag moom di Cheikhou Kouyaté ñu dal koy bàyyi mu nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di fay di leen di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi ñuy ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp tey baal ñëpp ak tamit. ñu ngi lay masoo bu baax euh, di la jaale nga xamante si nag moo nekk papa Cheikh bëggoon a xam yow aussi lan ci euh, paa bi ak Cheikh. Oh, waaw euh, si Cheikh Kouyaté moo ko jur mooy baayam bi ko jur man ak baayam ñoo bokk ndey ak baay kon Cheikh tamit sama doom la papam sama mag la. loolu moo ñu liyee. est-ce que mën nga dellusiwaat ci paa bi eh, ba xam dafa feebaroon wala. waaw feebar bi yàgg na ko tëral euh, en 2017 maa ngi moom ñoo ànd ba France mu faju ji depuis lors mi ngi fii ñu ngi si clinique yi ñu ngi si hôpitaux yi di faj euh, yàlla bi nga xam ne nag bu soxlaa day jël kullu nafsin zaiqatul mawti xam ne yàlla moom moom moo jël ñu nangu di wax alhamdulilahi ala kulli haal. tey naka ngeen dundee eh, mbir mi. comme tout un chacun comme jullit bu nekk nu mu koy dundee euh, tiis la masiba la xuraan moo ko wax masibatul mawti waaye nag euh, dañ koy sante yàlla bu neexee alhamdulilahi rabbil alamin bu naqaree alhamdulilahi ala kulli xaal yàlla dogal na nag ñu nekk nag famille bu mat ay jullit lañu nangu nañu yàlla teg suñu kaw bon sante ko yàlla. ki nga xam ne moo di Cheikhou Kouyaté naka la ko yëgee moom tey jii mu nekk ci ab compétition coupe d'Afrique bi euh, lu métti bi daal di dal ci kawam. waaw yëg na ko woote na fi sax euh, ak euh, dal la ko jëlee ak grandeur la ko jëlee xam na ne moom bindul baayam bindul boppam li bind baayam mooy yàlla bi ñu fiy ñëw indaal ñu dara bu ñu dem du ñu yóbbu dara te dëgg-dëgg li daloon na rasulillahi alayhi salaatu wasalaam saar bi ñuy wax suratul kawsar inna atinaakal kawsara boo ko jàngee histoire boobu da nga koy xam rasulillahi alayhi salaatu wasalaam bésu tabaski la yàlla jël doomam te daka nangu muñ ko yàlla na ko jógal nga jàpp nga julli nga rey sa gàtt ah kon ñun tamit lu lañ koy jàppee rek ay jullit la ñëw ñu ngi leen di masoo bu baax a baax comme ni ma ko waxee moom mu nekk compétition lu métti bi daal di dal ci kawam ndax tey moom ci ay kàddu lim la wax daf la wax ni ko dafa fas yéene ñëw fekkee li nga xam ne moo di enterrement bi wala. waaw incha allah si kàttanu yàlla am nañ yaakaar dina teew si kàttanu yàlla bu si yàlla ànd dina teew ñëw fekkee uh, robu baayam waajuram bu góor incha allah. enterrement bi kañ la. demee 10 heures si yàlla cimetière Yoff. salaamualeykum wa rahmatullah. Sénégal ka fay kan bu gaaw te wóor la waaw waaw kàppe de egg si na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew la eh kàppe daal mi moo wóor li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone man waaw waaw kàppe yi suñu gan gi si na kay kay kàppe ma kay kàppe ma moom sa bopp moom sa alal